Bonjour, assalamu alaikum, chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez à travers la chaîne 24 TV, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax dal leen ak jàmm si seen émission bi nga xamante ni moo di taxaw seetlu émission bi nga xamante ni moo leen di euh, mooy def taxaw di seetlu soxna Bousso ci lépp lu nga xamante ni <laughs> actualité li am fii ci Sénégal waaye duñ ci du ma ci wéet benn yoon macha allah comme ni ngeen ko gisee rek dama ci euh, làng ki nga xamante ne mooy di sama naata naataango di soxna buso Bousso Kara borom actunet macha allah di def liggéey bu am solo la 24 TV comme ni ngeen ko taxaw selu nak du yam on aura euh, on invitera d'autres personnes yi nga xamante dañ ñëw def waye tay nak sama sama xarit sama sister ah di di di soxna borom seen café matinal mom la fi à bala bobu rek dama leen à waat bu baax di nuy ñi nga di kilifa yi kilifa yi kilifa politique yi hein, faté wuñu tamit ñi nga ciabi da a ginnaw yalla leen yalla seen waye ñi nga ci yal na yàlla fëgg seen bopp delloo leen seen njaboot soxna Bousso maa ngi

leen ziar waaye mën a nekk rek euh, partout dans le monde tey teewee suñu kaddu ñu ngi leen nuyu di la ziar rawatina yéen ñi nga xam ne jamono ji yéen ñi bàyyi xel ci seen émission bu mag bi di taxaw seelu ma koy ànd rek sama sister bu ñaawul bi di ngóone mm-hmm. borom actualité culture bi nga xam ne moom lu mu indiwul ci culture bi rek euh, mm-hmm. leeru macha allah yàlla ko yàlla defal jàmm di nuyu ñi nga xam ne rek mm-hmm. sama sama euh, wasila yi nga xam dañ may bàyyi xel di ma ñaan monsieur Mani Cheikh Ndigal Fall Fall Ndiaga Yaram may sa bigé Kumba Fall Fall mi yàlla faale maa ngi lay nuyu di la ziar sëñ Babacar Sy Mansour Cheikh Ahmadou Karam Bakke Nouré ni Balla Aïssa Boury sëñ Mbacke maanaam yàggal yokkal ci barke Cheikh Khadim Ngoné waaw mi ngi noonu soxna Bousso mm-hmm. nuyu naa la yow bu baax naan la dalal jàmm ci émission bi nga xamante ne moo di taxaw seetlu mm-hmm. xam naa ne tey nag dinañ ci am seetlu bu ama ama ama mm-hmm. solo solo waaye damay nuyuwaale rek ki nga xamante ne mooy Charles sa doomu nekk ay waay man ak moom bu ñu dem defi reportage sax man ak moom maanaam moom duñ juboo xam nga duñ juboo moom reportage ko dee dem di ko defee. Mhm. damay bëgg a teg pression naaj bi mënuma taxawal fii su ma waxee ma baaxul defal lii. moo tax maanaam moom duñ juboo. moo tax it tey moom da ñëw rek sànni ko dama ne ko tey bi yaa koy teg. gis allah moom it ñu ngi koy nuyu bu baax. un jeune dynamique mhm. macha bu ñu àndee foofu ca Noto. Mhm. encadré na ma comme il le faut waaye it ngi naan image yi leer na. Euh, ndaw bu bëgg li mi xam nga li li jafe ci réew mooy bëgg dara ba pare te amoo ci ambition. bëgg dara ba pare te bëgg nga maanaam koy bëgg bëggul. def moom da koo bëgg dangay gis tax ay SDT wala parfois ñuy mm-hmm. ànd muy def nii nii. départ ni def ni nga xam ne mhm. bëgg nako ko boo tout jàppalee inshallah rek incha dina dem mais nak sama la xala sa rak la saa su boobaa macha allah mhm. yal na yàlla fay ko fay képp ki nga xamante dédi mhm. cameraman di caméraman fi nga xamante ne di la Sen 24 TV rawatina nak suñu dj mom nga xamante moy mooy encadré li di ka fi Matinal bi macha allah dañ koy gis taxawaye ma rafet na lool waaye soxna Bousso tay nak euh, suñu taxaw seetlu dafa nekk en vogue en actualité moy li nga xamante xewon na démb di procès entre Sonko et adissar Sarr ñu gis ni nak mu nekk procès boo xam ñun dañoo waxoon sax ndax sama siste Awa Diallo dañu ne woon non doy na duñ ci waxati et tout ça parce que man mi loolu laa waxoon mhm. ci wax man loolu boo xam ne xamoo kañ la jëm xamoo kañ la jëm deux cent et quelques amul voilà nit ñi dañoo demoon ba tayal ci ba loof si ñun nga xamante ne sax dañu nous sommes face à aux caméras dañoo demoon ba ne woon duñu ci waxati waaye nag la jar a ko jar ndax lu mhm. xew démb macha allah gis nañu dafa impacté carrément mhm. li nga xamante ne c'est parce que là c'est maa ngi lay nuyu bu baax au passage là voilà maa ngi koy nuyu bu baax mu au donc dañu gis ni dafa impacté carrément li nga xamante nous mooy société ndax bosoo mhm. ba diggante Sonko ak à Sarr mhm. au début dafa nekkoon comme ça maa ngi ko wax problème personnel mhm. parce que problème de viol c'est personnel viol il y a koy que je pense bien gars que maintenant ce n'est plus personnel dafa dem ba impacté société bi yëpp dafa dem ba nekk national yaa ngi ma doon wax sànq sax international waaw xam après dinaa la bàyyi nga gën see leeral parce que démb boo ñu jox information yi comme ni ma ko waxee rek voilà mu nekk nag loo xamante ni démb daanaka 9h ba 3h du matin. Mhm. ñu ngi ci boobee procès ba tey xamuñu verdict final bi kenn la lenn rek lañ ci wax le premier juin incha allah dinañ jox li nga xamante ni mu di résultat yi waaye euh, bu soo ñu gis ni it ki nga xamante ni juge bi. prononcé na li di 10 millions yi nga xamantene demande pour Ousmane Sonko ak 10 ans de prison pour su nekké euh, c'est vrai ou pas noonu rek la koy doxalee Bousso xam naa dama lay bay rek nga nga nga nga wax sa xalaat ci li nga xamantene nga def ci ab taxaw seetlu mm, mm, mm. ci li di procès Sonko et Adji Sarr bu xewoon foofu démb incha allah. Euh, euh, Ngoné maa ngi lay wat mm-hmm. di nuyu tamit téléspectateurs yu 524 TV la chaîne qui vous donne des informations fiables et nettes. exactement ñuy bàyyi xel ci rawatina nak cette émission bi di taxaw seetlu. Mm-hmm. man juste rek pour. revenir ci euh, procès bi. Mhm. gis nga procès bi ngóone. Mhm. au mën nga jàpp ne sax ay wax nii du du yàgg léegi ñu réglé ko mais dafa dem ba léegi deux ans deux ans mhm. ñu nekk di wax si Adji Adji ko Sonko Sonko Adji Sarr. mais am na yeneen dossiers yoo xam ne dossiers yoo xam ne. mu ngi ci kaw table yi am importance. franchement ñaata personne ñoo nekk fee. leen caabi féete ginnaaw te am na ñoo xam ne defuñu dara dañu la war a àtte. ñu bàyyi leen fa fàtte topp Adji Sarr. ko tey bu ñu indee benn procès. ne Adji Sarr ak Sonko dañoo war a jàkkaarloo. Mhm. kenn du liggéey. billaahi ñii seen doom yi dañu naan bu leen jàngi. jàngi du am. manifestation yu bëri yàq yàqu yu bëri ku la ko sànq ay doomu sénégalais ñoo fa nekk di daan doole. bëgg a dimbali seen waajur. Mhm. bañ ku leen yàq. Mhm. tey boo leen ko yàqalee. ñu nekk ci station yi di liggéey nag. surtout station Total man dama leen am ñeewantal. saa bu ñëwee rek ñu dal seen kaw dal xamoo fan la ñuy àbbee xaalis pour mm-hmm. liggéey. bu mm-hmm. mën a dimbali seen réew nga war leen a jàppale war leen a taxaw ngeen koy yàq. te ñu mm-hmm. koy yàq kat boo xoolee. boo xoolee ba ci biir. ànd ñoo ko Ousmane Sonko dañ ci duggaale ci biir. mooy bandi foofu dañuy yàkkamti loolu am na xam nga sànq maa ngi koy wax ci café mhm. mhm. mhm. yi fu boo déggee la waxee xale boo xam ne dañoo génne benn communiqué daal ne arme blanc arme blanche moo ko rey. Mhm. beneen communiqué génnaat tey waajal bu góor. Mhm. dem maa ngi gis euh, mu def benn point de presse di wax ak Antoine Félix Diome. Mhm. moom ñu waxoon kàddu woowu. Hmm. te xoolal deux moo ko rey bal réel moo ko rey. xoolal fii ci poudre loolu ku mu ko ku mu ko benn rek xajul ci xale bi. fii ci Sénégal fii ci ñu ne fii la xewee Sénégal. xoolal euh, ñu nekk bitim réew. Hmm. dañu ñëw ba di dugg suñu gouvernement naan ma Sall nangam ak nangam. tey Macky Sall war naa dem ci keneen sax naan ko ba xam war naa def euh, troisième mandat wataam fan yëpp mooy ma gën a fës ci réseaux sociaux yi mm-hmm. dem ci beneen nit koo xam ne bokkul si nekkul sénégalais nekkul africain mm-hmm. nga dem di ko laaj ba xam mën naa def troisième mandat mm-hmm. te yow euh, euh, constitution bi li mu wax leer na ñaari mandat rek exécuté plus de deux mandats merci ñaari mandat rek nga mën a def ñaari mandat rek nga mën a def kon Euh, Macky Sall war naa xoolaat boppam Ousmane Sonko Adji Sarr. ñoom Ousmane Sonko tamit war naa dem wuyu ji. dëgg dañoo xam ne dëgg war naa dem wuyu ji ma setal boppam. parce que da nga bëgg a doon président en deux mille vingt quatre. Mhm. war ngaa war a mën a dem wuyu nga setal sa der boo defee boo deful. Mhm. demal. Mhm. parce que lii nii ñu ko amande buñ ko 3 juin bu ñëwee. buñ dalee ci kawam ñaanal ma ko jàmm jàmm rek laa koy ñaanal. ñaanal ma ko lu bon jàmm rek laa koy ñaanal. mais tey bu dalee ci kaw anam ñëwul woon. ndax démb man j'étais euh, là-bas. neuf heures ba trois heures du matin mm-hmm. man maa la koy tooñ maa lay tooñ sànq naan la sax reeruma ndax information yi ma nit ñi di xaaree ki ne damay woo bu sa fan la toll fan la toll mm-hmm. loolu c'est une fierté parce que mm-hmm. xam nga da ngay yëngu ci leen sama maam daan la wax naan liggéey boo ci nekkee te fasoo si tekki say ndombo tàng nga bàyyi ak liggéey bu munti doon mm-hmm. fas si xam li ngay wax mm-hmm. ku ñuy critiquer rek moo xam dara koo xam ne nag critiquer kuñ na waxuñu ci yow leen que defoo dara defoo dara moo tax boo nekkee ci métier te fasoo ci rek bàyyi te dem moo tax démb mm-hmm. du doon def information ñëpp dañ daan woo buso buso buso dafa fa la tool merci beaucoup kon pour bu te rek il jox gëdd réew mi mm-hmm. xam na tamit fii réewu Serigne Touba la réewu Serigne Babacar la mm-hmm. Mm-hmm. réewu Serigne euh, Baye Niass la ñeneen ak ñeneen ak nit ñu baax ñu fi nekkoon kon nañ ko teg ci yoon Ousmane Sonko buñ ko woowee mu dem wuy ji te tamit ñu bàyyi tamit bu saa woote amee rek policiers fu nekk ñu taxaw fa ay oto yoo xam ne ci guerre dañ ko doon gis ñu koy gis léegi Sénégal ah xale yi léegi dawatuñu de seen baqal lañ teg. Mm-hmm. moor yi day gën di bëri ndax en en mille vingt et un. Mm-hmm. quatorze morts moo amoon. Mm-hmm. plus les trois morts. li nga xam ne am na la seize passé bii. muy lu métti loo xam ne rek xooloo xooloo manifestation bi amoon ngor xale bu ndaw bi ñu bi ñu rey rey ko ba pare muur ko continuer. loolu ci yeneen réew yi lañ ko doon gis mais léegi Sénégal lañ ko gis. nañu xoolaat suñu bopp parce que sànq tamit maa ngi koy wax si café il faut ñu am sérénité. loolu il faut ñu am ko parce que tubaab day wax naan la sérénité est une arme fatale. Mhm. loolu il faut ñu def ko suñu bopp. fu mu amul rek amuñu merci beaucoup ak tamit ñu joxe information ñu joxe ko en temps réyal ba pare nag. mu leer naññi. exactement parce que ñu bëri ñu ngi seetaan merci dafa bari am na mm. ñoo xam ne tey benn char la mënoon ne gis sama statut eh Ousmane Sonko na dem wuyu Adji Sarr lii dëgg na ko wax man xam nga kii man démb mm-hmm. Euh, j'avais des euh, larmes aux yeux. Mm. parce que Ndeye Khady Ndiaye man jur ma. mosuma mm. xam lu ñuy juree. Mm. mais ñaan naa yàlla jur. Mm-hmm. boo gisee mu toog 9h ba 3h du matin ci nga xam ni 8 mois de grossesse. tey nga taal mënoo taal say tànk c'est désolant kon dama jooy démb. Mm-hmm. li may joxe information maa ngi jooy. Mm-hmm. ndax dama koy yërëm yaram bi dafa kanam gi dafa sadd. am na benn point de presse mu def après ba kii bi jeexee mais en terme mu ngi doon wax mais xool bu gisee kanam ci lu mu dafa sonn mm-hmm. kon Adji Sarr na wax li fi am mm-hmm. Ndeye Khady Ndiaye nañ ko bàyyi mu dem dañ mm-hmm. ko bàyyi mu dem moom daa gérer kii Sweet vote rek. dans daal Sweet vote la gérer. wax ci tamit loolu loolu mooy difficulté gérant son xamee ba gérer moom. yaa yaa ci ay problème yaa ngi ci kaw kon mhm. man maa ngi ñaan rek. Mhm. Euh, ci barke Serigne Touba. Mhm. ñu bàyyi lay Khady mu dem ba kérok yalla diko may boppam. da yalla ko yalla may omu sedd guy. sha allah soxna Boore difficulté. mu ngi noonu soxna Bousso euh, am na solo bu baax jangat bi amna na solo. nga ci taxaw sel bu leer. daf ci taxaw sel bu am solo. waye ci information yi nga xamantene rek suñu mbokk journaliste yi ñu ngi koy joxe. parce que démb it ñu ngi dégg ñu

da nga yaakaar ne dafa dafa démissionné mais mm-hmm, mm-hmm. après selon les dernières informations yi ma jot mm-hmm. moom démissionné wu xëy na li mu dégg foofu moo ko neexu moom kon suñu baara Mbàkke doole moom dafa nekkoon ci biir salle après ba mu déggee loo xam ne neexu ko dafa génnaat di ak keneen ak keneen dem na ba ay euh, avocat wu Ndey Xadi Njaay avocat wu Ndey Xadi Njaay ñoom dañoo génn dem léegi Ndey Xadi Njaay seul moo nekkoon foofu parce que xamul lu muy wax sax bu buñ ko laajee danaan bàyyi naa lépp ci loxoy yàlla bàyyi naa lépp ci loxo yàlla kon ça diir dire que. làmbool sax dañ ñoo fonkoon ba pare ñeewee ñu benn affaire boo xamante ne mooy suñu jàmm suñu salaam. teraanga bi ak teraanga bu nekk ci biir macha allah ku amul dara it mu ngi dund si jàmm waaye ak ci salaam waaye dañu gis ni maintenant on devient de plus en plus pauvre, mhm. mais on devient de plus en plus indiscipliné. Mhm. ak ah, bu parce que soo xoolee euh, diggante Sonko ak Adji Sarr comme ni ma ko mhm. waxee au début. dafa nekk problème personnel mais léegi dafa dem ba nekk national international. parce que ñi ñi dem di xeexal Sonko. wala ñi dem di xeexal Adji Sarr dañoo am lu leen metti seen xol peut-être reste euh, tëjootul sax ci Sonko ak Adji Sarr rek ndax jeunes yi génn di di def seen violence di def euh, comment dire, manifestation du toj di yàq di sàcc c'est parce que peut-être dañoo amul liguey wala mm-hmm. amuñu fu fété féetee yépp di mal du cœur yo nga xamante ne mënuñu ko créer fenn fu dul ci mm-hmm. biiru manifestation yi mm-hmm. mais lenn rek lañ leen wax guso àdduna bi dara jaru fee ñaaw gis nga ki di Sonko ki di Adji ma dama japp ni légui légui ñom ñaar ñëpp kenn amul ci lo ci perdre même Sonko suñ ko tëjoon laj ko laj 10 millions da génné cash Adji Sarr

am nañ droit wàcce fa ay takkandeer hmm. pour encercler en cas parce que ni ma ko waxee rek indiscipline bi dafa bëri en hmm. cas de en euh, xeex su fa amee su ñaari nit di xeex mais su ko su leen nit ñi mënul àtte takkandeer yi mën nañ leen àtte loolu ñu ngi leen di encadré hmm. si yoon bu baax waaye it en cas su ñu leen ko accordé lul

bu gën intéressant je pense bien bu ñuy texte table lu dul ay cas de viol entre un homme politique bi nga xamante il veut être leader du pays euh, en 2024 un président ak kenn koo xamante ne dafa nekkoon ci salle de massage dafa liggéey mm-hmm. am na yu fi gën a bu soo mm-hmm. comme problème Covid bi xaalis bi nga xamante ne mm-hmm. dugaloon nañ ko anamu tay kenn xamul fu mu toll te au début dañ naan teg à 100 mais maintenant il faut que le la café matinal voilà comme nous sommes mm-hmm. la faux Covid mm-hmm. na c'est plus intéressant ñu wax le mm-hmm. pétrole au Sénégal bi gaz bi et tout ça voilà éviter le troisième mandat c'est intéressant On à chaque fois di di di di li nga fait. su fitna su am de ça su se am bu bu ki nga xamante ne di avocat Sonko bi monsieur Tall bu mu neewee dafa bëgg ñu puusaat procès bi ba ki nga xamante ne mooy Khady Ndiaye mm-hmm. daal di daal di am jàmmam ñu bëri ñu ngi naan non nañ ko lijjanti tey benn yoon jeex parce que nit ñi dañoo sonn même si que Khady elle était en état sonnoon na carrément mais moom sax je au fond d'elle dafa bëgg li mu jeex benn yoon Bousso yow it est-ce que gisoo woon ne Sonko waroon naa wuy ji parce que comme ni ma ko waxee sànq rek avec ou sans jot convocation euh, question de setal sa bopp la. Mm-hmm. même su convocation ñëwul sax moom waroon naa faa njëkk ci tribunal ba taxaw dëggal boppam ci preuve génnee mu génne. su aji waxee mu wax mu doon confrontation boo xam nit ñi dañ koy xaar mais à chaque fois ñi nga xamante ne ñoo di ñoo di avocat yi ñooy dem lu lay say wax léegi rek su su jotul woon convocation lan la fi avocat yi di ut mhm. di dem di taxaw di teew xanaa ñoom ñoo gën a xam article yi luñ ci wax ak lan cay demee donc jàppoon ni waaw ndax mhm. article bi dafa bala ma bala nga may jox kii bi mhm. mais article bi dafa wax daal ne buñ lay jugé te yow ñëwoo say avocat mën nañ laa Mm-hmm. say avocat bu amuñ droit wax. balay commencé di la layal. loolu rek sonk waroon naa tax mu ñëw loolu rek mm-hmm. defet la mm-hmm. donc yow ni Sonko daal waroon naa mën a teew ci li nga xamante ni moo di procès. waaw euh, Ngoné sànq yaa ngi koy wax. Euh, gis que manque de respect bi. damay laaj. d'où manque de respect à <laughs> que fu ja dëgg amul. jàmm mënu faa na wax li am. Sonko na wax li am ñu réglé ko mu jeex ñu nekk ci leneen. yaa ngi koy wax léegi. fonk ak Covid 19 waxoon naa ko bu yàgg nee mujj fenn du mujj fenn waxoon naa leen nee naa du mujj fenn gis nga leneen la ñu nii. Mhm. Sonko Adji bu paree ci leneen la ñu xam nga li wax troisième mandat. Mhm. kii instant yi ñi nga xam ne lekkoon nañ ci seen bamba naan na. lool fii ba na fii laa ko waxee duñu ñàkk mhm. te lu tax si ñoom du ñàkk ay ay milliards ay ay journalistes reporters yoo xam dajale woon xam nañu amuñu dara ñu dajale ko jëm jàppale nit ñi Serigne Mountakha mais Serigne Mountakha les deux ah. cent millions de Serigne Mountakha ah. ana mu fan la mujjee mujjewul fenn am na lu gën a importance que Adji Sarr ak Sonko. Mhm. instant yi nañu wax ci Covid bi. xaalis bi fan lañ ko dugal. instant yi loolu rek. loolu rek merci suñu 200 millions. Ablaye Diouf Ablaye Diouf euh, merci Ablaye Diouf euh, Sarr mi nekkoon ministre de la santé. Mhm. na génn wax. Mhm. mais loolu instant yi kenn waxatu ci. am na yeneen dossiers yoo xam ne ñu ngi tribunal la war nañ koo war a mën a àtte. mais kenn àtteewu ko. léegi lu tax ñu bëgg a jël Sonko Adji saar rek. def def ko cas. yéegal ko waaw ko ba mu man daal yow Bousso jàppoon naa niveau bi war woon mu yegg fii. war a yegg fii xam nga fan la waroon a yem. 2021. ca début ba ko commencé sa début ba. lañ ko waroon a jeexal mu jeex. kon kay Sonko xam na fu mu féete. Adji Sarr xam na fu mu féete ñun ñu ñu féete. te li ma gën a métti ci wax ji mooy. Mhm. Adji Sarr tey mu wax li suba mu wax leen mhm. parce que am na ay vidéo yoo xam ne yu génn ak ay audio yoo xam ne moom moo ko wax. Mhm. carrément nekkuma en état te euh, en avant dafa waxoon ne. dafa ëmb dafa ëmb. tey mu ñëwaat wax li kon ça veut dire que baa ngi génn ak aussi ñu ne euh, viol dañ ko criminaliser mhm. d' accord euh, procureur bi dafa teel a joxe li mu li muy daan mënoon naa bàyyi mënoon mhm. naa bàyyi ba am lu ko leer taar réew mi laa ko tuddee parce que xale yi ah, xale yi xale yi pare nañ mhm. seen bakkan lañ teg na xoolal rek Ousmane Sonko dafa génn daan man dama bëgg bañ a dugub xoolal tey jaaykat yëpp a génn ñëpp a seet seen bamba naan kon am na ñoo xam am na ñoo xam ne lu koo xam ne yàlla da koo may dara mm-hmm. nangul ko ko mm-hmm. yaa ngi dégg na nga ko nangul te aussi aji saar na xool ne moom jigéen la. Mhm. ëllëg dafa war a am borom kër. dafa mhm. war a am njaboot. Mhm. gis nga internet bi man bu soo li ma fi def. du dañ tey li ma wax fii tey du dañ sama doom bu ñëwee day appuyé. ma wax la nag su date bi ñëwaatee en 2024 dañ la koy rappelé comme Snapchat ni muy def. Eh. day ñëw naan la photo woon nga lii fii nga nekkoon. te am ngeen am nga dossier yu leer yoo xam ne teg nañ ko ci table bi. médecin ba nee na trois jours avant. xale bu jigéen bi sëyul loolu rek vier mënu faa am. te ki ñu violé nga jug dem sa doxi sa yoon te yow nga tegul sa liste. li tax mu yàggee nii daal jaaxal na moom. li tax mu yàggee nii parce que dëgg bi dëgg bi ci boppam lañ nanguut a dégg. Mm-hmm. nañu mm-hmm. wax na foofu rek dëgg amoon na fa. Mm-hmm. ba médecin ba waxee ne trois jours avant. ak góor sëyut. loolu rek te démb rek maa ngi dégg ñu naan médecin bi dafa waxaat ni gis na ay ay ay traces de sperme ci ki nga xamante ne moo di Adji Sarr démb rek. muy noonu dégg naa xam nga tamit dañuy indiwaat beneen complication. c'est ça. parce que fi mu ne nii réew mi toll nañ fi mode boo xam ne ñun ñi dañoo sonn. Mm-hmm. y a des yoo xam ne jàng nañ ba yor seen diplôme. amuñu ñu ngi toog seen yaay yaakaar leen. Mm-hmm. loolu wut dañ cee war a wax benn. busoo busoo mm-hmm. dagguma la de. te dagguma la waaye gis nga Sénégal. ñun suñu dara moo jagul. Mhm. maanaam suñu système beeg lépp gis nga li nga wax rek. moo mhm. jeunes yi dem ba am seen diplôme te mënuñu liggéey ci dara. Mhm. maanaam dañ ñoo waroon a tàggat au début ci nga xamante ne moo di préparer wu ñu sur sur sur l'utilisation wala comment faire. pour pour pour ci li nga xamante ne moo di moo di moo di quête du travail. mais kenn yaruñu si yaruñu si dara lu dul ay grève. xam nga Sénégal mooy xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne. boo amee bëgg da nga yaakaar ne am nga lu dul jeex ci àdduna. Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany dama koy souligner ci loolu dafa wax lu am importance keroog. Mhm. mu ne am bac taxul nga mën métier. da ngay dem nga jàngi métier. xanaa xamoo ñu xanaa xamoo ñu nekk université bu ñu paree. Mhm. dañuy defaat eh, dañuy dem defaat eh, ci. formation man man ba ma amee bac dama décidé ne damay dem def directement formation. Mhm. gën a teel sama bopp. Ah. moo gën parce que tey boo amee bac ak même boo nekkee université tamit. mënagoo dara. dara mun a goo ko moo tax jeune tamit nañ dem jàngiwaat dangay lang rek nañ dem jàngiwaat lu ñu war daal bari na instant yi mhm. Macky mhm. ngi ci fin mandat mhm. na ko gëm bu mu sax bu mu sax xëcc déedéet bu mu xëcc man Macky Sall li ma ko gën a meree Babacar Fall sax parfois dama koy dégg mu nekk RFM ñu ngi koy nuyu gis que boo amee say journaliste yu xarañ bi nga Sénégal kenn dàqule na jàng wallaay kenn dàqu leen a mën li ñuy def. Mm, mm. mais Macky Sall dañuy xeeb nañ ko wax te dee. Mm-hmm. dañuy xeeb. Mm-hmm. xeeb nañu benn. Mm-hmm. bu demee France média français yi lay lay waxal. yu mel ni BFM TV yu mel ni France 24 RFI ñoom lay waxal ñun nag. bu ñu yóbbu de mm-hmm. te xoolal Emmanuel Macron bu dee dem fenn ah, bu dee ñëw fii Sénégal day gàddu ay journaliste yu ñëw mm-hmm. mais ñu tey ban journaliste moo ànd Macky Sall mm-hmm. na na am ko message la ma ne kii eh, dara dara dox kon ça veut dire que am na am na am na benn lu ma ko mën a waxee sax ci olof am na benn loo xam ne xeeb bu ñuy xeeb rek ñun ñuy journaliste fi nekk tey bu ñu woon fii amaana tey suñu suñu suñu jàng dina gën a kii boo xalaatee ne boo demee waxal Emmanuel Macron soo demee waxal Emmanuel Macron français ngay wax ak moom di nga gën a dem jàngi Mm. mais tey am na ñoo xam ne tey lu leen neex la ñuy wax ci réseaux sociaux yi. Mm. Mm. parce que Macky Sall joxu leen gëdd du leen yóbbu ñu dem euh, euh, wax ak ñeneen ñi moom daal euh, média français rek lay waxal. Mm-hmm. mais loolu tamit war nañ koo wax. war naa jàppale ay doomu réewam. Mm-hmm. fii daal xale yi jàng nañ de. luñ a wax xale yi ak ñoo jàng. luñ ci a wax jàng nañ de. luñ a mm-hmm. trop sax waaye xam naa nag. dañuy jeexalee ci li nga xamante ne rek ci ba tey dañuy delluwaat ci procès bi hier. Mm-hmm. parce que suñu déggee léegi rek euh, lay say mu ngi koy souligner di mooyu déplaçant yi nga xamante ne dégg nañ ko fa démba ba maître El Hadj fa kenn ku nekk ak la nga wu maanaam wax yoo xamante ne ëpp naa dégg ëpp naa xalaat waxatuma laa koy dégg ci milieu boo xamante ne ay kilifa lépp nga fi toog gis nga bësul li ma wax sànk rek mm-hmm. Sénégal da nekk ca bopp ba ñoo yaruwul mm-hmm.

la loi du plus fort mo commencé am fi nga xamantene ne di Sénégal. ko mhm. mën sa morom duma lu mën way waaye mën sa morom lu bon wax ko nu gëna salté nu gëna ñaawé nga génne ko nga wax ko mais bu ça c'est pas normal parce que yow nga dem lu toll ni procès nga naan nii la ma def ak rus naa sax jaar ni la def ak ni la ni la ko ki kiiwa ni mari day taal yi ba ñëpp di koy ñaaw am ñoo xamni ne quitté carrément la salle parce que mhm. parce que nee na lii wax ni c'est un peu déclassant mais bu imagine toi euh xalé bu ndaw. toog procès Sonko Adji Sarr bi di ko di ko di ko traversé ba tey démb le 23 mais ñu ne xaaral ñu ma toog moom gone gi de mu ne xaaral ma toog suivre li nga xamante ni moo di procès bi fu mu mujjee parce que man personnellement so mais imagine xale boobu imagine toi yow xale boobu daal di toog di dégg li nga xamante ne mooy moo déplaçant yi di fa génne ba tax na ñoom lan la ñuy wax dañuy naan Sénégal ñëpp a yow kilifa politique yeeg ñëpp a réew. parce que mhm. li ñuy waxee vraiment éduqué wul kenn kenn soxna nga euh, Bamba Xaadimu Rasuul. Mhm. da daan mhm. bu njëkk. ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba. da doon wax naan teranga bu njëkk ci doomu aadama. Mhm. mooy yar ak teggin. kese gis nga boo amul yar ak teggin. Mhm. munoo dem fenn yar ak teggin moo lay àggale. Mhm. tey yow sa yar ak sa moo tax nga toog fii. tey soo ko amul woon tey directeur du la teg fii ngay def ay émission. keneen ak keneen. mais xoolal euh, assemblée nationale. ñu war faa toogal réew mi war faa toogal askan wi. di sa di ñaxtu seen seen jafe-jafe. war cee wax. dafay nekk di saagante. di waxante lu ñaar di dóorante. benn ngi noonu deuxièmement école bi nga xam ne sax xale yi fa la ñu war a éduquer ñu mhm. war leen a jàng ndax boo xoolee sa kër yaay nga bàyyi ko deuxième maison bu xale bi mooy école fa lañ la war a yaree tey am na benn vidéo bu ma jot keroog benn professeur moo violé benn kii woon élève am loolu ba kañ loolu ba kañ loolu ba kañ mhm. ñu nekk si réew moo xam ne problème yi bëri na tey gis nga euh, nu mu tuddati pétrole bi ñuy wax ak gaz bi bis mhm. ñu amul yar ak teggin beneen doomu rew moko jël pokati ko suñu loxo. jari ko est-ce que tamit jëlu ko te yëguñu ko. merci beaucoup. c'est la question qu'on doit poser. Mm-hmm. c'est que euh, rew mi jaxasoo na ngoone. Mm-hmm. kenn xamatul fayte sa tank fépp li nane rew mi fi ne yaramu euh, euh, ku màgget la. Mm-hmm. fo la da fay met santé bi ña ngay joy éducation bi ña ngay joy rew mi armée baangi joy jooy ah, armée bi xam nga xamoo est-ce que ma xamal la ben wax nak tay takk der yi. ñoo gëna sonu ñep ay jàmbaar lañ Mm-hmm. parce que ka taxaloo leen di huit oh. ba trois heures du matin. Mm-hmm. lekk ñu naanuñu. Mm-hmm. ñoom ay jàmbaar lañ. dañ leen a war kenn war leen teg benn coono man dama leen dama leen a xool yërale parce que man parce que man ñu ngi dundee ak xale yi nii bëgguñu ci dara bu ñu jàmm la am ay jàmbaar lañ man dama bëgg homme de tenue parce que sama papa moom la woon mm. ma génn àdduna mm. moo tax su ma gisee dama leen ñeewantal mm. na ay liggéey bu rafet war nañ leen gën a di delloo njukkal. Mhm. parce que ñoom ñoo yor la paix du du ñoo yor la sécurité pays bi ñoom ñoo ko yor en fait suñ demee nag ba seen biir dëkk amatuñ bu njëkk sax daan gisee homme de tenue dafay def wuy daal di daw oto ba moom doo ko sax seen mais léegi da ngay gis ay xale yu yor seeni xeer di xaañ li nga xamante ne ay policiers di xaañ li nga xamante ne moo di seeni oto. mais loolu. Mhm. Mhm. xoolal ah xoolal xoolal benn benn image boo xam ne rek si un peu historique mooy benn policier rek ak benn civil ñu taxaw nii di waxtaan dañoo ñoom ñoo jàmmaarloo woon doon xeex. waaw mais mujj gi dañoo teg seen arme yi. procès toog waaw grève bee passé la merci beaucoup ñu xool ko xoolaat kon ñoom war nañ leen a war nañ mhm. gërëm leen. ñu ngi leen di bu baax a baax baax a mais man si li may ñëwaat rek Sonko ak Adji Sarr fi ni moomuñu réew mi. dëgg réew mi am na yeneen ni ko war a nekk. dund gi seer na. nit ñi dañuy feebar ba sonn duñu am. duñu fajoo nit ñi lépp bi nguuru yàlla rek moo du jeex. Macky Sall mi dafay dem. soir mu doon Bougane Gueye wala Ousmane Sonko. Mhm. wala xalifa Sall wala Barthélémy Dias ñoo koy wut. Mhm. kon na rafet. dañu mhm. li may wax chaque jour rek fini son mandat en paix. dem ci jàmm keneen wuutu ko. moor yi bëri na jafe-jafe yi bëri na. xale yi nag. seen bakkan lañ ci teg. fi ne ah. nii seen seen yaram tàng ñu war cee teel seen yaram man sax dama doon wax naan sax xoolal nañ ko bàyyi mu sedd. Mhm. nañ ko bàyyi mu sedd ñi nga xam ne nag faatu nañ ci ñu toppale ndax seen waaju tamit am nañ xolu métti boo xam ne ba léegi. ba léegi ñu ngi koy jooy man xale bi ñu mujjee faat rek muy Amadou Kayta mhm. sama xol bàkki sëriñ ma seetaanee vidéo li mu nekkee meilleur élève mhm. yi papaam yi nasaan yaakaar ko yaayam yaakaar ko ngeen ñëw faat ko nii nga génn benn communiqué rek daan ne arme moo ko rey te yow nga gis ne kii deux balles réelles moo ko rek loolu rek man ça me tient boo xam ne man damay xool ba ci yow boo xalaatee sa bopp yow sa rakk koo ko defoon tey man du ma du ma toog fi def émission. Mhm. kon nañu xoolaat na état jug. Mhm. jàppale leen. Mhm. coow lu ñu jëm koo fay Macky Sall bàyyi. nga xam ne mandaam jeex na keneen moo koy wuutu. nit nag doo lekk lu dul sa wërsëg. dëgg de waaw. tant que koy wax Cheikh Ahmad Bamba nee na. yar ak teggin mooy teraanga bu njëkk ci doomu aadama mhm. kon nañ am yar am teggin mhm. fii nga toog nii yow da nga am yar moo tax ñu toog mhm. man dama am yar moo tax ñu toog keneen ak keneen noonu kon nag nañu jéem a xool li nekk dëgg ñu nekk ci aji Sarr mu wax li am Sonko wax li am ñu jeex ko mu jeex ñu nekk ci leneen alors alors soxna Bousso mi ngi mhm. noonu yaakaar naa ni nag suñu waxtu dafa xëccu jëm si jeex. Mhm. waaye comme ni ñu koy waxee rek taxaw seetlu moom. mooy mhm. émission boo xamante ne lépp nga xamante fa nekk en vogue en actualité da koy mettre. ci table bi avec la Sen 24 TV ñu waxtane ko waye tay suñu gisee ñu fi jug ci kàddu xamné ne xool yee parce que euh, Sénégal bu ñu nekk la ñu tu nit ñi fi dëkk sax dañoo mel comme ay étrangers en fait étranger sax ñu gëna a nekk à l'aise en fait fii suñu réew parce que tout simplement tension yu fi fiy gis yooyu yëpp dafay amul woon donc nak euh, soxna Bousso hmm. dama lay bay rek nga tàggatoo tàggoog hmm. ak suñu ami fidèles téléspectateurs de la Sen 24 TV waaw euh, Ngoné ça a été un plaisir mo bokk yo plateau réew mi parce que yow moom li may wax chaque jour rek mm-hmm. saa booy euh, bu may defandoog yow émission mm-hmm. damay yëg ni dama dama ci jàngaale mm-hmm. parce que même actualité culturelle bi ngay def damay toog ba si ak papa may xam nga damaa sob su naa sob sob damay damay <laughs> boo waxee damay dugg recherche tey noonu nga ma def te li nga wax te li nga wax mooy nekk ci internet bi <laughs> comme ça a dire que jour yaa ngi teg ci yoon bi yaa ngi wax lu leer yaa ngi def lu leer te yaa ngi tam tamit jéem a di bokkal say naataangoo parce que yombul tey nga nekk ak nit ci benn télé. Mhm. mu bëgg di la maanaam yow ak moom ngeen di bokk yi mhm. ngeen di waxtaan boo defee heure mu ne la busu ah li nga waxee du noonu de mhm. man dama dama bëgg loolu parce que ñun waruñoo am benn enante suñu biir waruñoo am benn iñaanante parce que damay dégg benn journaliste bu mag di ko wax ne ku mën dëgg du kii soxor ku mënul rek mooy soxor dëgg man de damay am envie sax bokk ak yow plateau parce que man mm-hmm. gis naa accueil bi mm-hmm. ak li ngay waxtaanee lépp di leer kon dañ lay félicité di la mm-hmm. ñaanal rek kenn ku ne lépp li nga bëgg ci télé bi ak lépp li nga bëgg àgg yaa na la ko yàlla àggaleel ci barki Cheikhul Khadim xana di la remercier bu baax di remercier aussi téléspectateurs yi nga xamné rek ñoon doon suivre fi ci Sen 24 TV la chaîne des grands événements ñu leen sante baax di leen gërëm di gërëm aussi toute l'équipe dynamique bi nga xam ne ñooñu accompagné woon ci mané ne Laïsa ak Charles bi nga xamné la jël na ma fa fat na la na ma sonal na ma dama koy baye ak yàlla rek man yàlla rek la koy baye di leen jox dig dajé ba vendredi inshallah merci beaucoup ok mi ngi nonu soxna Bousso di la jaajëfal bu baax yaakaar naa ni moom wax sa mbaxu morom yàqul dara ci sa mbax waye su fekkee ni rek dañoo bokk di liggéey war nañ koo rafetal ba ëllëg a tax ndax mun nañoo tase si yeneen télé yu gën a mag macha allah loolu la ñaan yàlla mm. nañu ne waa ki du soxna Bousso mu ne mm. a a a sax yow sax man dama lay séddu feneen ah, France 24 wala New York boobaa <laughs> ma lay ma a yi kenn kenn mm-hmm. dootu la macha allah à chaque fois da ngay di wax yu rafet mm-hmm. te gis nañ la ni ngay def si actu net bi man daal maa ngi lay topp comme ni ma la ko waxee procès <laughs> daal yow daal topp di la di la diri ba si miiru bis bi. di xool macha allah day day leer day leer macha allah yal na yàlla fay. donc nag di di di sànni waa appel bu ndaw rek ci jeunes yi nañ ànd ak dal ak tey. dara jar ko fi wallaay dëkk bi lu ñu fi yàq rek si suñu économie lay lay dugg. Hmm. plus de neuf millions wala neuf milliards ñu koy perdre à chaque euh, manifestation ci ay Auchan yu ñuy yàq ay Total ay ay kër jàmbur ay oto jàmbur yu ñuy yàq day day day day mettre suñu économie à bas. Hmm. te loolu kenn ñaanu ko yàlla Sonko Adji Sarr lu bu sa wax moo fi nekk de. Hmm. aji waxal dëkk bi Sonko wuy si Macky Sall génn ci euh, bàyyi sa troisième mandat dëkk bi daal di naat. macha allah di nuyuwaat bu baax suñu caméraman caméraman ak ki nga moom it caméraman la en même temps nag journaliste la fii si fii animateur xarañ lépp moom daal lépp daal na ko na ko yàlla mën li muy def parfois nag ma gis ma dégg ko ci Central FM waaw macha allah muy def sama xol bi day sedd bu dee acca ma xamul lu ma gën a neex ci moom acca <laughs> kon mu ngi noonu rek may baragu ci suuf <laughs> dafa dooj mu ngi noonu ak Charles Charles maa ngi lay nuyu waale bu baax ni ngi noonu rek su ko defee ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon si fi nga xamante ne mooy la Sen 24 TV ak seen émission taxaw seetlu ànd Sister Bousso, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.